asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ci bis bu tedd bi bésu aljuma yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko bitim réew bu ñu waxee bitim réew suñu suñu mbokk yi nekk bitim réew ak mboolem doomu aadama yi nekk bitim réew yàlla may leen jàmm ñoom ñëpp ñoom diaspora bi lañ leen wax parce que ñun ñii ñun ñii yëpp taal suñuy caméra Euh, dañu leen di wéttali fa ñu nekk yàlla na leen yàlla defal jàmm yéen ñëpp ña ñu xam ak ña ñu xamul ñëpp ah. mais man euh, kenn laay nuyu wala ñaar laay nuyu ñu nekk bitim réew ñaar ñoo xam ne dañu sori ci man trop kenn ki euh, Jaguar yàlla na ko yàlla may jàmm Mouhamed Gueye fa mu nekk. yàlla na ko yàlla dimbali ba mu génn ci tolof tolof ya mu nekk keneen ki saa kajoor mon ami mon frère yàlla na la yàlla defal jàmm yow it ba nga dellu siwaat incha allah bi fekk fi njaboot gi. ngi fii ci Gunaas mm, fekk fi le champion. ah le champion boo xam defagul dara ci làmb defagul dara ci làmb déggagul roi des arènes ah euh, jotagul cent millions mais il fait partie des lutteurs les plus wala bokk ñi ñi gën a ñi gën a siiw ci làmb ci la bokk seen i bés ah, moom tamit bésam day njuróog bésu borom cent millions yi mooy papa booy jinne moom lañ fekk si fii ah, notre fief Gunaas nuyu waa Gunaas yëpp waa Géejawaay parce que fii moom sama sama koñ la fii ba euh, nu mu tëddi Joseph Correa ak lycée Limamoulaye yooyu yëpp maa ngi leen ziar bu baax baax Papa booy Djiné la ñu fekk si ak sama naataango yi Fadel ak buy euh, sama ndey Mbaye Diop Bpro borom reefaan <laughs> ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy bu baax ba Mbacke Balla ñu ngi indi ziar gi léegi nag comme nuyoo nañ damay bàyyi champion mu nuyoo ma daal di jox euh, la ngay Fadel ak Diop. ñu wéyal waxtaan mi incha allahu rabbi euh, champion gannaaw bi mu la nuyoo ñaanal la jàmm ak famille bi yëpp ak soxna si Ndeye Gueye ñu koy ñaanal jàmm moom it dinaan ko waaw góor loolu rek lañ ciy wax ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna yëpp ginnaaw bi ñu sante yàlla di julli si yonent di sant suñu ñaari waajur d'abord ñu ngi leen di sant seen teewaay nga xam ne comme ñoo bokk liggéey bi. te tout le temps heure bu ñu leen soxlee rek ngeen bàyyi seen temps bàyyi seen lépp ñëw soutenir ñu si li ñu bëgg a wax. sagam ñun moom daanaka suñuy wax bariwul lool lool lool lool. ndax buñ neexoon mu ne ñu ne yomb nañu. lu ñor wax lu ñorul wax. mais foog naa bi ma bëree ba léegi. peut-être toogaay bi bëggoon naa ko. am na ñu ko bëggoon a it. mais xëy na tey la ko yàlla dogal. maa ngi sant yàlla bu baax. di julliwaat ci yonent bi. di sant sumay ñaari waajur ndaxte donta war nañ ma ginnaaw mais dafa mel ni ñu ngi suma kanam fu ma toll ndax yenn yi su ko nit di dund rek loolu liggéeyu ndey la maa ngi koy sante suma yaay di sant suma papa bu baax a baax ndax bu lépp baaxee ba fi ñu toog nii kenn dégguñu si lu ñaaw kenn dégguñu ci lu bon ñu ngi koy sante suñu waajuru góor ndax teg nañ ci conditions yi bien yoo xam ne soxlawuñu dara yi kenn ñuy sant yàlla bu baax di nuyu nag suma waa koñ bu baax a baax baax ndax tey comme ni nga ko waxee rek tey peut-être su may défaite moo ëpp samay victoire mais su ma jógee gox bi yëpp ñooy jóg gunge ma ci bés bu ma jëm maa leen di sant di leen gërëm di sant suma dëkkandoo yi nga xam ne ñoom ñoo ma wër rawatina kër gi ñu nekk nii di suñu grand di grand Matar ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax ni nuyu mbokk mi nekk Casamance yëpp te nuyu tamit suñu benn grand boo xam ne bi suñu waajuru góor génnee àdduna moom lañu fi bàyyal muy côté Magaale mm-hmm. ñu koy ñaanal di ñaanal njabootam mm-hmm. di leen sant di leen gërëm bu baax a baax mm-hmm. di sant sumay mag yi nga xam ne ñoom laa nekkal sumay mag yu jigéen ak suma mag yu góor yi nga xam ne ñu ngi si Europe bi ku si mel ne suma mag Sulay ak Buuna ak suma taawu papa Habib maa leen di nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant combat bi am nañ ci taxawaay bu rëy ñu ci def. Mm. sant naa leen gërëm naa mm. sant ñi jàpp ci combat bi yëpp nag. Mm-hmm. di leen dalal daal. Mm-hmm. Fadel yow moom daanaka lii yàgg nañ ko bëgg. waaw yàgg nañ ko bëgg ah. waaye tey ko yàlla. waaw ah, la ko tax sànq mooy lu jot rek yomb. lu jot yomb dëgg la waaw lu jot rek yomb tey la ko yàlla dogalaa. Ah. man ak moom ñuy def entretien euh, di ko ko sante tamit ah. euh, te comprendre ko tamit ci situation yi nga xamante ni bëggoon naa ñu waxtaan mais bu ñu waxtaanee rek damay damay ànd ak moom ci li mu ma wax du sax jar forcé même ba tey am na am na lu mu ma wax démb am na lu mu ma wax tey tamit euh, ñu la ciy sant parce que tey jii nii nee nga ma munoo loolu sax jarul ñu ci ñu ciy ak quoi mais ñu ngi lay sant bu baax a baax mais mais tey dinañ waxtaan de. waaw tey dinañ waxtaan te gars yi bëgg nañ laa dégg est-ce que xam nga ne tey dinañ waxtaan. waaw loolu moo tax ñu dajaloo fi pour man. parce que kenn ku si nekk am nga loo waroon dem defi ji. Mm-hmm. ñu bàyyi lépp ñëw toog pour ñu waxtaan dañuy développer ñu waxtaan ci li nga xam ne tey jii nii moom mooy suma métier. Mm-hmm. ma am droit pour wax si nag. Mm-hmm. am sañ-sañ pour wax si. Mm-hmm. te fas yéenewu maa wax lenn luy béré sa kenn it. mais nag olof danee moom dëgg mooy njëkk mooy mujj. sooy dee waxal dëgg booy dund waxal dëgg. te man papa boog man sama jëmm ji. su ma ci namee wax lenn lu bokkut ak dëgg. je préfère ko ma noppi. nañu nit ñëpp comprendre nag. waaw ndax àdduna moom saa su nekk rek. lii dëgg rek. mooy dëgg. waaw lu dëgg lu ne rek dañuy raayante te man toll ma foofu. te jeune laa te am naa lu ma bëgg am naa lu ma bañ. peut-être ñu bëri nag mënuñu comprendre papa. mais man comprendre naa leen. waaw parce que am na benn sa benn combat boo xamante ni am nañ ci fekk nañ la ci sa open press. école Souleymane Baal avant combat bii nii. Euh, fekk naa la fa mais communication man à chaque fois su ma ko déggee rek même sax su may reporter say combat dama naan euh, nit ñi am na nu ñu ko xoolee mais c'est en lutteur très très mature dafa am maturité ci bopp ci xalaat bu waxee ñëpp kontaan dem nañ sax ba ne papa dafa yaru dafa kóol te dafa mën a wax ñu bëri say wax lañu la apprécier bañ ba ne sax na bàyyi bëri parce que wax ji dafa rafet te suy wax dëgg moo ko tax a jóg dëgg googu noonu gis nañ ko ci yow loolu la ñuy témoigner ci yow ba téléphone bi ñu waxee man ak yow tey tamit dégg naa dëgg mais yàlla na yàlla dogal rek ñëpp comprendre ñu te ñu wax loo xamante ni duñ déranger kon damay bàyyi euh, Fadel mu ñëw jege si la ñu commencé ci question yi incha allahu rabbi ah alors mon frère ñëwal. jërëjëf mbokk yi ñu ngi rafetlu kàddu yi fi jub lépp jóge ci Pa Maguette di suñu confrère te mënu fay wax lu weesu mënuñu fay wax lu weesu li mu wax loolu moo lay wane rek métier bi kon seen asamaan la jatt buuxante te noonu la ñuy àndee tamuy dëgg nag di rafetlu kàddu yi fi jub yëpp tey nag li ma wax sànq rek li moom li mu wax mooy que ni kin seet si jarul ci waxaat lu bari parce que Pape Maguette wax na lépp papa ginnaaw bi nga nuyoo ba pare tey jóge ci combat ak coow li ci am lépp ak li ci laxasu nga woote bis lu waral sabab woote bi. waaw lu ko sabab mooy que man préparé naa combat ci préparation boo xam ne ñun sant nañ ci suñu borom parce que su fekkee da nga jël avance su jàmbur. contrat ak moom. combat bi di deux mois. suñu borom suturaal la nga préparé waajal ak say mbokk ba yegg ci bés bi rek nga bëre li ciy xew lépp xew ci rek dammoo amewoo benn blessure sa deret génnul gaañu woo si war nañoo dooleew njukkal suñu borom ndax yàgg naa ne yàgg nañoo gis combat bu taxaw ñu préparé ko ba mu yegg ci cappaandaw bi mbër mi blessé loolu nag daluñu kon loolu dañ koy sante suñu borom te sant nañ daal comme ni ma koy faralee di wax rek ñun ay jaam lañ yoo xam ne li olof di wax kii ñaan moom luñ ko moy daa war a jël te ñun ay jaam lañu xeebu yoo xam ne fi ñu jaar moo tax ñu gëm yàlla surtout man fi ma jaar moo tax ma gëm yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax tey su fekkee da nga am dix-neuf ans wala dix-neuf ans et deme que ñu taxal la ci problème boo xam ne yow amaana yow fekkee woo ko yëgoo tinoo ñu yóbbu la ci kaso téye si ñetti at yu tojul benn dërëm sa papa di ko souffrir fu mu toll say mag say dëkkandoo nga am si gëm yàlla bu mat boo xam ne da ngay xam ne lii mbiru suñu borom la du mbiru doomu aadama ngir li tax defuma lu tax ñuy li fi te tout le temps saa su nekk suñu borom mi nga xam ne moom moo ñu sàkk day xool li gën ci yow mu jox la ko ma nangu ko nag dund ko mu jeex si jàmm ma ñibbisiwaat ci samay mbokk continuer waat li nga xam ne moom laa gëm muy sport parce que si làmb man lañu lañ ma yóbboo kaso su fekkoon tey jii nii am naa benn lu may gëma di rek bi ma génnee mënoon naa jël làmb teg ko nële dem xool beneen yoon bu ma jaar parce que xàcc boo gis wërsëguwaay la mais dafay am loo xam ne gëm-gëm la te man gëw mu metti rek ma bàyyi dem seeti leneen man pour man dama war a dem ba mu jeex tàkk lu ma yàlla jox ma soog a jël loolu ba tax man yi may dund ci làmb nii yëpp barki naa Mohamed dama gëm ne mbiru suñu borom la du mbiru doomu adama parce que li may wax chaque jour rek peut-être foo bi gars yi dàq ñu ma ko su ma ñëwee stade da ngay xam ne kii mbër la parce que day jëf jëfinu mbër du ma yàq làmb su ma ñëwee li ma CNG ak règlement may loolu lay def lu ma yàlla jox ma jël soo gisee bi may waajal suma combat bi yëpp tout le temps damay wax benn kàddu di ko wax suma adversaire di xaw di ko xamal ne yàlla mi la doon may man moo ma doon xañ kon gënoo ma gëm yàlla yow te yow am nga li nga xam ne moom nga wax lu kenn rafetluwul mais nag sama gëm-gëm ak li nga wax man moo ma yokk jom ba li ma doon def dama ko yokk fukk ba tax bi ñu jëflantee ba pare moom si jëm bopp xam na ne combat bi mu bëree ak Papa Boy Djiné moo gën a difficile moo gën a metti ci carrière loolu nag bu ko kenn gisul bu ko kenn yégul ko kenn xamul man am personne xam naa ko parce que Jacob Balde bu bëree huit combats sept victoire benn défaite nga bëreeg mbër moo xam ne ay défaite am moo ëpp ay victoire nga mën a bëreeg moom dix huit minutes et quelque li xew ci làmb ji lépp ñi nit ñi gis nañ ko. yéen ñi fa nekkoon nii tamit seetaan ngeen fekkee ngeen ci commencement ba fin waaye noonu la ko suñu borom bëggee ba tey damay delluwaat ci ngëm gi ma ngëm suñu borom xam ne suñu borom bu ko neexoon bu arbitre bi sifflee Jacob ma daan ma ma dem ñibbi. te dama koy sant waaye malheureusement demeewul noonu bëri nañ ba nga xam ne tey képp koo xam ne amateur nga nga ñëwoon ci bés bi kontaan nga ci bés bi ndax def nañ jëfinu xale rempli nañ suñu contrat ak promoteur bi nga xam ne moo ñu joxoon xaalisam ndax xeex nañ bëri nañ làmb ji it boo xoolee si Jacob buñ nee dafa duma papa wala daf ko gaañ daf may jaaxal Ardo gisul papa booy jinne Jacob rek la doon gis chaque instant chaque instant kon làmb ji lu ci xew avant mu may wër ndomb dafa am lu ci xew lu bëree baree baree bare bëri ma sant nag suñu coach Arona Sall ak Lac de Guiers numéro 2 ak Mathia dund Alioune ak leader yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Ikiri Waalo combat bi ñoom ñoo ma ko gënoon bëgg ma préparé ci préparation boo xam ne mosuma ko préparé ci làmb mhm. wala wala gëj na bokk mhm. maa ngi ko dégg ci ay waxam mu ne bi combat bi desee ay une semaine dafa feebar loola war sax combat bi demee noonu am naa combat man ak Nandi yàlla ma Nandi Fall daan man combat bi si deux mois yëpp feebar naa ci trois fois man semaine combat bi barki Seydina Mohamed maa ngi woon clinique gu Ndiaye ndax ay fatiguement ak tooy nekkul nag ay feebaru musique man combat bi diiraa bi mu taxee ba nii may wax ak yow nii. léegi léegi suñ géewoon suñ ma géewlawaatoon nag ak Jacob Balde ma wane waat li ma wane woon parce que li ma ko wax ci départ ba fi ñu toll nii mooy yaa ngi bëreeg mbër mu la ñeme di bëreeg mbër mu la xam li nekkoon seen pexe ak li ñu bëggoon nag suñ borom dogalu ko mooy arbitre sifflé na Jacob arbitre sifflé na duma na daan na loolu lañ indi woon te noonu lañ ñëwee si làmb ji waaye suñ borom dane xam nga jàmm bi day bëgg mais yàlla mooy dogal loolu moom moo fa am keroog di sant nag ñi nekkoon ci làmb ji yëpp. di masawu ñi nga xam ne tey jii nii fi làmb ji jeexee neexewul kenn neexu ma man mi nga xam ne maa doon bëri parce que fi ma yegg mbër yegg nañ ko fa mu génn si fi ma fi ma yegg mbër yegg nañ yegg nañ ko fa mu jënd galaas mais man leer na ma leer yàlla fi ma Jacob de yegg su ma bakkoon laa ko doon teel mais du ma daan ñàkk xam-xam sax mooy waral nga wër nit wër ndoo ma nit am beneen solution bu dul ay dóor te bi ma bëree ak léegi yàggul la six la. su fekkoon ay blessure wala coup yoo xam ne amoon na impact day feeñ fi ma toog nii kon dóor yi mu doon dóor amul important. mais mais nga may ñu foofu noonu ci dóor yi après la suite li ñu ko wax mooy li li mujjee xew. Mhm. loolu mooy film combat yaa ngi si film bi. mais si biir film combat wax nga ko sànq euh, euh, doo doo am combat ba ñëpp ne àccam doo am combat ba ñëpp jéppi la doo am combat physiquement ku la xool xam ne liggéey nga boo ñëwee ci làmb ji ñu ne combat roi des arènes lay bëri maanaam kii. mbër moo ñëw tey te keroog gis nañ ko mais ni mu demee ci biir géew papa am na benn moment boo xam ne ñu xaw la dominer tuuti foofu noonu papa dañ ko yeew wala papa dañ ko dominer wala papa dafa kawate woon wala papa da doon gérer combat bi xamoon na lii xew mooy li nga waxoon prip muy gérer combat bi wala nu mu demee looloo jaaxal ñëpp nag. waaw man su fekkee yàgg nañ seetaan sama combat. Mm-hmm. man combat yi ma mës a bëree bi sifflé man maay dem. bu la neexee après ngeen teg combat yi ma bëre man combat moom ba sa bëri yëpp ñenn ñi sax dañ may balaam bi da ngaa teeyul combat yi nga bëri yëpp yaa daan sa bopp parce que man xaw ma xaar ci làmb man li ma gëm chaque jour rek mooy su ma entraîné ba ñëw damaa war a ñëw def yëfu xale ndax làmb ëppal nga ba daan xaar nga ba daanu kon man gëm-gëm bi ma am rek mooy bu arbitre sifflé man waruma yàggal foofu amateur yi dama war a ñëw bëre waaye nag looy gën a dem ci làmb rek ngay gën a am kilifa ci làmb di jël affaire jeunesse nga teg nale xam ne dafay am ñu topp sa ginnaaw xam ne am na ñoo xam ne dañ lay yaakaar am na ñoo xam ne ba tey jii nii découragé wuñ ci papa. kon il fallait que ma leen di bàyyi xel. tey ma def préparation man ak ak sama staf ak écurie Walo yëpp diiraa bi combat bi taxee ñu ne man ñun ñii lañu bëggee nga bëre combat bi soxlawuñu sa xalaat ci combat bi ñun lu ñu bëgg mooy lii lañ bëgg nga def ko fii lañ bëgg nga yem ko fii lañ nii lañ bëgg nga waxee ma ànd si ak ñoom ñu liggéey si loolu. bañ ñu yegg si ba ñu yegg si egg si sat sama coach di Arona Sall majj majj Alioune Seye numéro 2 ci biir délassement yëpp lii lañ ma wax ñun peut-être sax programme bi xaw a faussé ñun mooy dañoo jàppoon Jacob bu arbitre sifflé day ñëw toog ci tànk yi ñëw bëri si waaye moom fi mu ñëw ñun xaaruñu ko foofu te li ko li gën a li gën a li ko gën a li ko gën a confirmer mooy bi ñuy bi ñuy bëre ma koy daan ci watu saako yi muy def foofu trois bi boobu la jëlatul ay engagement ci bëre bi mooy li ma wax rek bëre pour daan ak bëre pour wut point du benn moom point la doon bu Jacob Baldé mi ngi dem boo xam ne day appel gauche dóor droite ma génne mais gisoo ko benn yoon mu ñëw song ma. d'accord papa man sama question ci biir combat bi dafa mel ne ci biir combat bi dafa am lu la fa naqari ci lu bari ci doxalin bi. parce que souvent même sa communication foofu ci stade bi ak fii da ciy feeñ stade bi da fa dund loo xam ne bokkul ak ay règlement làmb yu la waroon jox te joxuñu la ko wala ay cër. waaw. lan la. merci parce que ñun sport la ñuy def sport bi ñuy def aada ak cosaan su ñu ñëwee ñu tous def li ñu war a def lépp maanaam premièrement bi may njëkk a balaame rek mooy zemi yi nit ñi nit ñuy bundu xatalee ci biir làmb ji duñ la may nga. échauffé wu ni nga bëggee duñ la may nga délassé wu ni nga bëggee dañuy dem ba benn instant sa cumbukaay dañuy ñëw jël gisoo combat Balla bii passé te barki Serigne Bamba dama kontaan ci li mu def mooy jeunes yi bi ñu bëggee tëj barrière am barrière yi cumbukaayam dafa ne du ko fa kenn du ko fa teg jël barrière yi sànni leen ko fële. ñu nag peut-être fii Balla Gaye ñun ñun ñu foofu am na loo xam ne bu buñ ko defee dañuy gis nañu ñun réew la wala amuñu yar wala amuñu teggin. mooy waral yenn yi duñ ko mën a def mais dafay am yenn yoo xam ne dafay metti ci biir stade enceinte bi dafay metti <coughs> tellement que yow dootoo nekk à si làmb ji. est-ce que làmb ji yéen ñaar xatu trop. dafa xatoon parce que li. ak mesure parce que xam nga lan mooy erreur làmb ji. Hmm. mooy mooy mooy mooy par exemple cumbukaay. Hmm. dafay ànd ak mbër ñëw stade. parce que stade tey su ma daggee bee ñëw toog si chaise bi kii dagg bee ñëw toog si chaise bi ma ne la jugal daa am ku ma jàppal place bi doo ko nangu. Zil Balde ak accompagnant wu tey Jacob Balde yi tey su fekkee dañoo ñëw stade sans ay bagages wu Jacob Balde ñëw jël seen i barrière teg ne fii la ñuy teg seen cumukaay sans mbër loolu luy indi complication la si làmb bañ ay coow ay détails mais suñ neexoon ñoom fi ñu teg seen cumukaay suñ newoon làmb ji foofu la fa lañ koy dem teg. parce que Jacob Baldé mi nga xam ne moom laa war a Jules Baldé du mbër quoi amul licence wala wala dëgg amul licence bëriwul kon moom bu fekkee dafay accompagner mbër sax dafa war a ànd ak mbër mi dugg biir esat mais ñëw teel Jacob Baldé cumbukaay wala ànd ak ay nitam ñëw teel cumbukaay gisoo biteel gisoo ay bagage gisoo sëriñ gisoo kenn bañ coow ak détail moo tax teguñu foofu suñ cumbukaay ñun. parce que bu ñu neexoon Jacob Baldé su ma neexoon bu ma man so am naa sax droit Jacob Baldé ñëw teg fii ci mukaay ma teg fii waxuma la nag Jacob Baldé bu mu ñëwulee kon ma am droit teg fépp parce que man maa jiitu si stade bi Jacob Baldé te man sekkuma ak Jules Baldé contrat Jacob Baldé laa sekkal contra bu ñuy sanctionné Jacob Baldé la ñuy sanctionné bu ñuy teg ay daan Jacob Baldé la ñuy teg ay daan pas Jules Baldé kon erreur bi foofu la démarré si organisation CNG mooy que Jules Baldé bu ñëwee day teg fii ci dañ ko war a laaj ndax yaay bëre d'abord kon bu fekkee bëriwul rek amul droit ne day jàppal ci mukaay kenn première erreur bi mu ngi noonu deuxième bi ñun fi ñu teg fi ñu war a teg suñu cumbukaay lañ ko war a teg parce que ñëw nañu esaat gisuñu suñu adversaire fenn ñu ñëw teg foofu suñu cumbukaay léegi ñu ñëw par exemple diggante boobu nu mu xatee ñu jëlaat ay barrière teg ko foofu ranger la ko ba ci tribune bi ñun buñ bëggee tuur ndox sax il faut ñu dem wari ji géew bi jaar ji nële dem tuuri ji ndox Iba tey organisation boobu boo ko fa bëggee def rek dafay indi complication mais ñun tamit su suñu dal ak suñu tey nga xam ne ñun combat moo ñu indi fexe nañ ba organiser ñun suñu bopp. tey boo xoolee même làmb ji bi muy jeex ar bi da doon bëgg a siflewaat combat bi mais ñoom bañ combat bi yegg moo tax ñoom ñoom ñoom fi fi ñu nekkee fala la xeer yi nekk ñoom ñoo doon sànni xeer yi ñun mënuñu nekk ci biir stade parce que stade bi amul ay xeer rawatina ñun yéen fi ñu toog ak journaliste yi ñu toogoon benn la. journaliste yi bi ñuy jóg ñii seen i caméra di dam yëpp parce que xeer yi décalage yooyu moo tax kenn ku nekk xamatoo foo jaar parce que bëggatuñu woon arbitre sifflaat combat bi loolu mooy li nga xam ne tey jii nii yooyu yëpp ci manque de organisation la si départu làmb ji parce que combat bi ñoom dañ ko jàppee woon benn combat bu ndaw boo xam ne enjeu bi xamuñu ko woon mais après làmb ji ni mu déroulé ba ni mu jeexee ngay xam ne combat bu metti bu compliqué moo doon moo doon moo moo doon moo doon moo doon am tey mais nag sant nañ ci suñu borom ba kenn gaañuwu si gaañu si kenn ñi ma àndaloon ñëpp ku si nekk ñibbi wax si nga ñibbi waat nga ñëw sa kër si si jàmm ak salaam man mi nga xam ne maa doon bëri même chose. léegi waaw loolu man duma ko balaame dara. duma ko waxit dara lu dul moom li mu bëgg ak li nekk ci xolam loolu la def. waaw mais man li ma bëggoon ak li nekk sama xol man xamoon naa ne suñ ma bàyyi woon nit Jacob Baldé yegg na ma fu gën a sori foofu ndax bi may plaqué di ma yéeg foofu munoon naa daanu foofu mais résisté naa résisté ñu jalgandalu ba mu wër ma ndomba bi may dóor man maa ngi ak sama conscient maa ngi ak maa ngi si biir làmb ji parce que làmb en général dañ lay wër ndomba rek da sa fit bi day dem dootoo nekk ko dootoo am xel mais boo xoolee même bi muy déclenché ay coups teg sama loxo fii. kon man maa ngi ci làmb ji boo xoolee boo xoolee combat bi moom bi mu dóoree benn ñaar sama tànk fi mu bi bi may war ndomba dama ko tàllal ba mu jeex mais bi mu defee benn ñaar yëpp sama tànk indi naa ko ba nga xam ne man maa ngi calculer coup yi bu bu dóoraatoon rek booy bu xaaraatoon laa la wax trois secondes dama doon jug man. parce que man maa ngi calculer ci loxoom bii metti li ma ci bëggoon def maa ngi calculer man sama jëmm. waaw mais maanaam maanaam. fi booy bi booy bi li tax mu dugg ci géew bi mun naa ne arbitre yi ak médecin bi moo influencé booy bi. ci naka merci parce que ñun bu ñuy préparer combat ba ñu egg ci cappaandaw làmb ji suñu ménager daf ñuy wax tant de personnes la may heure nangam ngay ñëw esat CNG lii lay bañ lii la nangu ñu ne ko waaw ñu xëy ñëw esat ñëw liñ ñu may ñu dugal ko ñëw teg suñu cumbukaay. règlement yi ci biir géew bi su fekkee sa épaule laal na suuf jël la sa bopp laalee suuf jël la boo doree ans jël la xam nga boo jaaxaanee wala nga dëpp jël la beneen bi si topp boo fekkee da nga indi blessure ci biir làmb ji nga takk élastro sa loxo sa poignet wala sa épaule wala sa loos wala sa zone arbitre buñ ko gisee dañ koy dindi parce que dañuy foog ne blessure nga indaale si làmb ji booy nëbb ba ci combat guy gi rek de gis nañ ko guy gi bi mu demee bay waaj a bëre yi mu takkoon ci poignet yi arbitre bi da ko da ko ko dindiloo kon ñun mësuñu gis ci làmb bi làmb xëyee ba tey nga amee blessure boo xam ne moom mi ngi wax sax loxoom bi la ko bëtt kuu ma dóor ci bëñ barki Rasulullah bi combat bi jeexee ba léegi yàpp laay lekk. waaw ma ne waaw dama ne bi combat bi jeexee ba léegi chaque jour yàpp laay lekk. kon lan moo bëtt loxo bi. voilà léegi li bëtt loxo bi dama ko koy wax moom am na benn instant moom dafay wàcc di ma dóor croisé gos droite gos ma dajeeg moom bi ma koy dóor bi ma koy dóor man dama ko doon dóor ci bopp loxo bi ci loxo yi ñoo dajante loolu moo toj loxo bi. loxo yi ñoo daje. poignet yi waaye kon kento yi ñoo daje. loolu moo moo toj loxo bi. comprendre ci biir bëre bi moom. bu fekkoon dañoo dem loxo bi ni mu bënnee moment boobu médecin bi amul lu mën a téye deret boobu mu ngi doon saigné complètement waa léegi foofu reglement bi daf ñu may nit bu amee blessure boo xam ne mu ngi saigné bu ko dab ci sport de combat bi muy def mënuñu ko arrêté li nga xam ne moom la ñu yoon may mais dañoo war a disqualifier kooku jox adversaire am victoire waa léegi li blessure yu gën a moyen seer yooyu yu gën a yomb yooyu day am ci làmb ñu annuler combat bi jox keneen ki yàgg nañ ko gis ci làmb mais ñun keroog li fa am comprendre ñu ko ci làmb xamuñu ko. bi booy bi dawee ñëw dugg ci làmb ji yàq làmb ji. parce que li tax. waaw booy bi tax mu am accès foofu. waaw li ko may sañ mu ñëw foofu. parce que Zil Balde fi mu am accès amu fa accès. ok benn. maanaam zil woon waaw da nga jàppoon na yow làmb ji warul woon a egg làmb ji maanaam dafa warul woon yegg foofu. disqualifié bu yàgg. léegi booy bi li ko li ko may confiance mu dugg ci biir gi ak sañ-sañ moom moom wax na ko sax si benn interview am mooy arbitre di ñoom ñoo ñu influencé ñun ñu dugg moo ma influencé ma dugg ci biir géew bi parce que maanaam làmb ji fi mu waroon jeexee jeexeewu fa moo tax bi ñu eggee sama mbër fenn fi man ma dugg saboote mais euh, papa booy bi tam euh, li mu def erreur la boo xam ne bakkanam mënoon na ci des. parce que ma ñëw parce que booy bi jeune la. Mhm. lu bari mi si kanamam. tey mënoon nañ ko fa jom naaw naaw. après mooy perte est-ce que moom tam bu bu opposé woo ci arbitre yi ñoo tax ma defaat loolu ëllëg du ko defaat. no non non non non maanaam boo déggee maanaam arbitre yi ñoo ko influencé maanaam dafay am loo xam ne daf lay metti tellement que yow soo koy def doo sóoraale ku la gaañ doo sóoraale ku la jam doo sóoraale dee doo sóoraale dund. parce que li tax loolu mooy que ñun concentré wuñu parce que bu fekkoon loolu kese kese moo tax mu def ko kon man bi la man bi xam naa ay règlement kon su ma neexoon dama naan bëreetu ma man. man man am personne parce que man maay bëre mais déedéet man damay bëre ba làmb ci jeex lu ma yàlla jox après nag ma mën a développer li ci li ma war a defale mooy li ma def nii tey. bi mu duggee yàq làmb ji. loolu moo yàq làmb ji. Mhm. coow li am ci ñu daw séxatoo ko gis nañ Ama Baldé dugg def nga ci benn sortie loolu da ngay continuer di wax li nga waxoon wala am na loo ciy regret. waa dafa am lu jiitu loolu xam nga lan moo tax. mooy que Ama Baldé dafa yor licence. man ma yor licence. Mhm. CNG da ne mbër bu am licence amoo droit nga dugg ci biir géew bi di accompagner mbër benn mhm. benn bi ci topp Ama Baldé vidéo yeeg yëpp mhm. Ama Baldé day ñëw ba ci médecin bi nga xam ne mooy faj Jacob Baldé yor nañ ci ñun ay video yoo xam ne Ama Baldé day wax bay saaga Jacob naan ko yee eh, da ngay bëree di influencer tey médecin bi nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moo war a faj Jacob comprendre nañ ñun messin bi. parce que am na yoo xam ne bu ko nit di wax sax yow dootoo dootoo amati wóolite sa bopp. comprendre nañ ko. Zil Balde moom it tey geste bu ne def na ko ci biir géew bi moom bëriwul mais loolu lépp li ñuy wax rek erreur la bi nga xam ne ci côté arbitre bi la ak ci côté messin bi. parce que nit ki yow yaay jël sa propre responsabilité. pour def li nga bëgg a def. beneen bi si topp ñun xam nañ ne écurie bi ñu doon bëreel écurie bu mag la. tey Jacob li ko arrivé bu fekkoon tey beneen écurie laa doon bëreel kon làmb ji du yegg foofu billaay wallaay taalaay. kon da jàpp làmb ji kumba nday kumba amul la. waaw keroog loolu moo fa am keroog keroog loolu moom moo fa am maanaam kon ba tey may ñëwaat ci booy bi li ko dugaloo foofu rek maanaam. booy bi grand bi waaw maanaam xaara xaara xaara xam nga maanaam ba tey li ko influence loolu lépp rek. maanaam bu arbitre defoon li ñu war a def. médecin bi def li mu war a def kon du yegg foofu. te boo dégloo am na euh, bureau bu ma bi laxaat di wax di wax ak médecin bi di wax ak arbitre mooy li ngeen di def nii làmb ji da jarul bu fi jiyee amee après lu ci mënti xew seen responsabilité la. Abdoulaye Ndiaye ma Abdoulaye Ndiaye te c'est normal li mu wax noonu mais ñun loolu lépp sant nañ ci si sant nañ ci yàlla ndax ñun am na yoo xam ne. ñun duñ ko def te man man am personne man mi nga xam ne man maa doon bëri du ma ko def parce que man am naa esprit esprit de sportif. ginnaaw coow li ak la fa doxal am ci làmb ji d'accord bi nga xëyee da nga dugal recours réclamer wala da danga toog rek. waaw dama dama def recours. pour pour pour réclamer CNG. ci li xew ci stade bi. ak li xew ci làmb ji yëpp. parce que man CNG dama leen di interpeller ci loolu. Mhm. surtout président Birasène su fekkee CNG li fa euh, stade li fa am lépp ñu bind rapport ñëw jox CNG CNG war na mën a am ay micro territoire yoo xam ne dañuy def ay enquête morale balaa ñuy jël benn daan di ko teg ci kaw mbër d'abord mais bu fekkee tey jii nii dañoo jox benn nit bi nga xam ne moom mooy responsabilité CNG damay fàttali mu tudd jour suñ jour combat moom moo soloon moyen bu bula bi ak kasket bu banaa bi damay fàtte turam. li waral sax booy bi ñu yóbbu ko polisu quatrième ba defeere ko parce que rapport bi mu bind jébbal ko police moo tax te am nañ ay sources ak li nga xam ne lu leer la ci moom moo yor lépp Ama Baldé kon bi nga demee yow bay bind rapport bi nga xam ne moo jëmoon CNG mënoon ngaa bind Ama Baldé dafa fàqee cumbukaayam dugg ci biir géew bi fekk booy bi ci biir jëm yi dóor ko. jàpp ma turam quoi mais jour combat bi moom moo soloon t-shirt bu bule bi te moom mooy CNG la bokk moom mooy représentant yi foofu jeunes yi moom moo leen di placé damay fàtte turam. moo moom moo doon supervisé. rapport bi lim ci bind. lépp yàlla dogal na ñun bi ñu demee police donte police ñoom dégluwuñu. police it erreur boobu laay wax chaque jour rek. même bi may nekk ci prison bi ba ni ma génnee man chaque jour système boobu laay wax. mooy police il fallait que ñoom ñuy bàyyi xel si jël innocent bu xamul dara rek nga jóbbu ko rëbës loolu il fallait que ñu liggéey si loolu maanaam jël nit yóbbu ko kaso si erreur yuñ mën a lijjante waxtaanee ko di laaj xam nga xool kii ndax mus naa am problème mu police geste bi mu def mus na ko def est-ce que mus naa am problème yoon et cetera et cetera xam nga soo ko jël yóbbal yóbbu nit kaso loolu il fallait que état wu Sénégal mu bàyyi xel ci loolu des fois da ngay jël innocent boo xam ne xamul luy police nga jël ko yóbbu ko kaso. parce que lu mu bon bon sa xarit bi rek dugg na dugg dem na si dem na rëbës. dem na rëbës nii waaw yaa gis si loo xam ne ci làmb la xewee. sport la te yàgg naa am si làmb en plus que ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñun defuñu sport ñun suñu sport maanaam maanaam amul niveau. tubaab yi seen sport mu ëpp niveau te da ngay gis max buy daw nit am occasion dem di dugali nit wàcc si biir stade bi te dañ koy jël yóbbu ko téye ko ba max bi jeex ñu bàyyi ko mu dem donte nag suñu làmb dafa nekk loo xam ne préparation yi day metti ci kawu ñaari mbër yëpp gestes yu mel noonu su amee sax du metti CNG de trop du metti tamit doon supporters yi wala amateurs yi mais ci mbër mi nga xam ne moo tolloon ci occasion boobu lay gën a metti mais dama bëgg chaque jour rek police donte dañuy def liggéey bu baax dañ leen di gën a encourager mais nañuy xool nit suñ ko indee police ñu xool kii maanaam lan la mës a def ndax mës na am problème. am police tamit procureur bi tamit dañ koy dañ koy interpeller. li nga xam ne li jéeg njaag mooy njaag ndax bu defee rek moom mooy saytu xool ndax dama la war a placer wala dama la war a bàyyi. foofu dafa am liggéey bu am important bu ñu laaj nit war nañ ko mën a jël sax. tey saa ñu jël ko di ko signaler mandat dépôt. muy toog di est-ce que dinañ mais mais nit moo gën a fort PV. est mais nit ak ay conditions moo ëpp fuuf temps bi ñu war a am ak bu ñu warta am. ñoom loolu seen liggéey la. seen liggéey la leen ciy fay. manaam hmm. nit ki mun nga ko jël sax di ko defal ay retour de parquet di ko yar diggante central tribunal sax ba mu sonn nga xam ne lii du problème nga bàyyi ko mu dem ñibbi hmm. mais gis nga maanaam signal nit mandat dépôt. yóbbu kaso moo war a nekk dernière solution ci doomu aadama parce que kaso bu ñu xamoon lu nekk ci biir kaso balaa ngay jël nit di ko yóbbu kaso da koy segg seggaat ko xool ko xoolaat ko su ko def. mais bu ñu ñëwee ci carrière wu booy Boy Djiné saa yu amee làmb bu jàllee day am coow di nga toog di xalaat lan la. noonoon ñun duñu xalaat loolu parce que li tax duñ ko xalaat mooy que olof dane ku boot bukki xaj mbooloo ñun ñoo ñëw soisir làmb. Mm. xam ne suñu bëgg-bëgg la te suñu amul la ñu def ko suñu métier. Mm-hmm. kon lu ñu si mënti fekk ak lu ñu si mënti arrivé ñu dañ koy santee yàlla suñu borom. Mm-hmm. peut-être suñu borom mooy bindee ni mu koy bindee parce que li may wax chaque jour rek. Mm-hmm. ba ci gox bi ma dëkk am na mbër yoo xam ne ndam yi ñu am aw rawatina soo génnee gox bi ma dëkk am na mbër yoo xam ne ndam yi ma ñu am amuma ko. waaye yàlla suñu borom dalay xañ li jox la lale bu heure bi jotee mu boole lépp jox la. yàlla dogal na peut-être man papa su muy bëre wala su ma amee combat. Mhm. ampleur bi muy am ak cool li muy am. am na ñuy daan ñoo xam ne bëgg nañ ko. Mhm. mais peut-être amuñu ko. nga sangu sax pour mu wàññi. noonu ñaar ñaari bayre nga boole. bëgguma bëgguma ko boole sama émission quoi. parce que yi ñu ngi ciy wax di ci wax di ci wax nee nañ li nga am moo bëri papa du bayre de. <laughs> bay la bay ah. la. bàyyi bàyyi. waaw papa ñëppam loolu la loolu jaaxal ma yow. papa man daal papa na ko. ñëpp sax. waaw maanaam du bayre xam nga bayre si làmb boo ko amee. ngay bari di daanu dañ lay bàyyi. waaw seetlu lu ñu mës am bayre si làmb ñëpp. Mm-hmm. bu ñu daanoo daanuwaat daanuwaat mooy seen bayre day jeex. Ah, comprendre mais man aw ma bayre bayre laa am. man suma papa dama ko dama ko dama ko taxu ci biir ak ci biti donte jeune laa xale laa. tarbiwul ko ci bépp côté nag mu jur ma fi ma war a julee ma sekk ak moom loo xam ne man sama jëmm bopp mu ngi ci dëgg maa ngi ci fen mais daf ma gërëm ci biir ak ci biti mooy li may wax tey kenn ku si nekk tey boo dundee ba sa waajur wu góor seppi la ci ay doomam xool sa situation ak sa li ngay gëm ak li ngay góor góorlu ci jëmmam mu gëm loo ne la bu ma génnee àdduna ñuy miraas kër gi te jëndoo ko fi ma nekk du ma tàlli kon kooku sori woon na ci yow hmm. kon man sama jëmm boobu man xam naa ne li ma topp maanaam du man. ngërëmu waajur ngërëmu waajur la. yàlla na sax te continuer man fi may appuyé moom mooy kon ni CNG doxalee après d' accord. merci après ci kaw loolu bi loolu lépp jeexee ñu ñu toog jékki-jékki ñu ne ñu ah, CNG jox na Jacob Baldé victoire. parce que li tax kayit bi sax muy woon suñu kër li tax mooy li booy bi jugee. si cumbukaayu papa ñëw ci biir géew bi loolu lañ ko joxee victoire loolu kese lañ joxe amuñu benn sanction buñ ma jox à part dagg biñ ma dagg si suma xaalis mooy peut-être biteel yi ma ëppale ak personne de accompagnant yi ma boole loon yu ëpp lañ ma daggee kon ba tey mooy ñëwaat ci loolu ci CNG bu fekkoon def na li mu waroon def dëgg dëgg dëgg dëgg ci côté liggéeyam donte ñu loolu du suñu domaine te tuuti nañ ci pour yokk leen seen xalaat waaye li ma doon interpellé ci président Bira Sène man dama am su ma gëm-gëm ak su ma bëgg-bëgg bi nga xam ne su ma deful yoon bëgg naa ko ma teg si yoon su ma defee li nga xam ne yoon la ñu encouragé ma si mais bëggoon naa tey jii nii man ñu convoqué ma ma ñëw seen CNG toog. yow sanctionné wuñ la jotoo benn kayit joxuñu la benn kayit buy wane ne même sa waa jooju noonu dugg ci biir. Mm. moom it sanctionné wuñu déedéet que am na ay accompagnateur mbër yoo xam dañu leen sanctionné dañu leen aj am na ñoo xam ne rajee am na ay tëggkat yoo xam dootu ñu benn ah. kon yow wala moom normalement kenn mënoon a jël sanction amul amul benn sanction bu jóge ci man amul benn sanction bu jóge ci accompagnant bi jóge ci cumbukaay bi ñëw ci biir géew bi. li nu jaaxal li nga ne ki def rapport bi moo yor léppi Ama Baldé. waaw parce que nekk li tax. am nañu ay vidéo yoo xam ne yoo xam ne mu ngi ci internet bi yor nañ ko suñuy téléphone yoo xam ne am na ci yenn moment yoo xam ne sax Jacob Baldé am na beneen saa muy muy tàq ci kaw arbitre bi Jacob Baldé day wax ak moom mu mu sëgg ci noppam di ko dee. di wax moom moom superviseur bi. waaw beneen bi si topp moom bi booy bi duggee ci biir géer bi sport la quoi. bul jéem a sànq doomu jàmbur quoi en fait man foofu laay waxee xamal na lii sport la. te booy bi dugg si biir géew bi pour gars yi gën a delloowaat seen xel ci affaire bi moom du sportif parce que li tax Macha mu ngi woon ci biir cumbukaay bi Alioune Seye numéro ay Maguette Seck ay Madj Madj ay Talibé Seck ay booy Pire parce que xam nañ ne papa fi ñu ko yéeg nii dañ fay yéeg mbër mu génn fa mais li booy bi def supporter rek moo koy def. Mm-hmm. loolu supporter rek moo mën loolu. il fallait gars yi di bàyyi xel yooyu. maanaam sport sportif bu nekk sportif du def yooyu. supporter rek mooy am sañ-sañu maxi di daw mu dugg ci biir supporter mooy am sañ-sañu arbitre romb ko mu saago ko parce que li muy yëgee affaire bi la. merci léegi sénégalais il fallait que ñuy def ay calcul kii lan moo ko war a dugalee cumbukaayam dugg si biir géew bi mbër la wala du mbër dèjà bu ñu bu ñu defee ay sources xam ne kii du mbër rek war nañu mën a comprendre ni lii yëfu supporter la man mi dugg ci man mu dugg doon bëri man man nekkoon naa à bi nga xam ne man bu ma xaaroon moom laa la wax trois secondes wala quatre secondes man dama doon jug parce que dóor yi ma Jacob Baldé doon dóor amuloon benn danger bu ma si doon gaañ billaay wallaay taala yëguma si dara nag léegi li si toppaat ba tey damay ñëwaat ci règlement CNG bi ñu xam ne ñun ci lañu ñu tëng damay jox jaxu Baldé victoire parce que CNG dana nit boo ko wëree ndomba nga dóor ko benn ku ñaar ñett ba ñeenti ku réagirul da nga war a tas combat bi jox keneen ki victoire parce que mu ngi en danger. Pape Maguette ñu sport la ñuy wax. te ñun bu ñu noppee mën a bañ wax dëgg rek ñu bàyyi tey su doon arbitrer làmb ji damay tas combat bi jox Jacob Baldé victoire. lu tax parce que li nga xam ne moom la ñu règlement bi wax loolu laay defi ji. mais yow yaa ngi réagir parce que yaa ngi baare. waaw mais déggoo li ma wax ak lu mu munti réagir rek su defee benn ñaar ñett ñeenti coup juguma rek dañoo war a arrêté combat bi jox kay victoire. kon yow ci biir combat bi gis nga fu la waroon a mën a joxe victoire mais gis nga fu nu waroon a mën a joxe. merci. man foofu laa toll foofu laa nekk muy ci côté kaawu Jacob Balde fi ma yegg bi ñu defee bi mu defee benn ñaar ñetti ku ñeent mm-hmm. dañoo waroon tas combat bi jox ko victoire mm-hmm. waaye it bu mu blessé ñu xam ne kii deret bi mënuñu ko téye mm-hmm. jarul woon ñu koy bandal loxoom naan ko bëri parce que règlement bi waxul lool kon erreur bi ba tey dañuy delluwaat ci CNG ñoom la ak bi di ak messin bi nga xam ne moo fa nekkoon jox kee victoire war ba tey ba tey foofu tamit erreur waa jumte la te te leen koy nangul quoi ñun duñ fi nekk di balaame CNG wala di leen xam nga jaxase wala ñuy wax lu ñuy lu ñuy xeebee wala déedéet nit ku nekk ci sa liggéey ngay juume mais surtout que bu ñun bu ñuy wax dañuy bëgg dañuy wax pour suñu prochain combat wala saison bii di ñëwaat liggéey bi ñu liggéey ñu gën ko yokk ñu gën a defaraat affaire yi. mais sortie bi nga def li nga wax ama ñu bari dan la balaame ne waroo ko gën wax. waaw non man foofu du ma si développé lu bari parce que olof dafa am lu mu wax quoi. Mhm. nit ki mënoo ko gërëm démb ba ko xalab tey man nekkuma genre boobu. Mhm. ama suma xarit la. Mhm. su fekkee nit ñi nga xam ne ñu ngi may suivre yàgg seetaan sumay may interview damay wax man ñaari xarit laa am ci mbër. Mhm. muy Sokh ak Ama Baldé. parce que Ama Baldé man ak moom ma def naa lu ëpp six wala sept mois biir gàlleem yoo xam ne neex ma mooy tax ma bañ a fanaan gàlleem biir néegam ñoo fanaan ci sama gàlle. dund ngeen loolu. nañ loolu. man biir daaru laa doon fréquenté maa ngi nuyu en passant suma xarit Pam Minintou Saliou Fall mi ngi Europe xam nga ay ñoom ndeene xam nga ay ñoom xara di nuyu mafia bi foofu yëpp ñu nekk ay xarit yoo xam ne ama combat moom Malick Niang su fekkee li ma nii waxuma dëgg yàlla bu ma jëriñu àdduna ak alaxira barki alxuraanul karim man du ma du ma fen du ma sos rawatina suba damay bëgg samay waxu tey méngoog samay waxu suba combat moom Malick salle bi nekk euh, centre commercial bi njëkk avant bii nii Botora bi nekk am na vidéo yoo xam ne mu sama téléphone salle boobu Ama Baldé bi muy bëreeg Malick Niang dafa ñëw fekk ma fi ma fi ma taxaw laaj ma combat bi noo ko gisee loo ko xalaatee ma ne ko Malick Niang làmbam yi mës a bëre yëpp day teg pied gauche appel la gauche mais dalay kar dóor la droite bu fekkee yow mun nga résister Ama Baldé Ama Baldé mun nga résister Malick Niang ci première arrivée même bu arbitre sifflé ci biir ginnaaw ci mu kii géew bi fexe ko jël mu jël coup bu mësul jël ci làmb bu jëlee coup bu mësul jël ci làmb day énervé li ma lax nii bu fekkee waxuma ko Ama Baldé yàlla bu ma jëriñ te làmb ji noonu la demee barki alxuraanul karim ma wax ko lii ma ne ko Malick ñaam même bu ngeen at bu ngeen xeexee ngeen dem ci ci ginnaaw géew bi dóor ko soo ko bu énervé parce que ci biir xeex bi Ama Baldé mënul toucher Malick Niang parce que Malick Ma Malick am na garde te mën na xeex te moo ko sut kon pour mu jox ko coup bu bokkul ci làmb ji rek la mën a nekk mu énervé mu pare si combat bi te coup boobu moo yàq combat Malick Niang ba bi ko Amady daane bi làmb ji jeexee suma xarit suma mag commando mi ngi Mali man na ma seede ci li may wax te li may wax nii kii toog mën na ko seede dàll yooyu su ma juumul moom laa xam mujjee may xam ma alsan Ama Baldé combat dañ ko saraxeloo prix de ay ay onze dàll yu kenn musta sol ay technique yu bees tàq laa wax bi làmb ji jeexee technique yi maanaam boo maanaam dañuy dañuy dañuy xotti côté bi xotti côté bi dàll yëpp ba biir néegam laa dugg ñëw fekk dàll yi foofu mu ne ma sama combat maama la ñaan lañ ma ko saraxe loon ma ne ko xaaral ma yóbbu ñaari per dàll yi su ma demee ñëw ko di si entraîné 2014 kon kooku suma xarit la yàggul yaa ngi gis Ama Baldé bi ñu bi ñu mujjee man ak moom ñu contact ci diini matul 6 mois wala set mois boobu mi ngi soog a jógee ci blessure am bi mu amoon ci épaule bi di préparer combat moom Modou Lo bi mu ñëwee di entraîner ci diini man ak moom fu ñu gisante man ak moom dañuy bëri ba ne sip li ma la wax ni Alaaji Mbay mun na ko seede mu ngi ko fekkee na ko Tafa alam daa mun na ko seede ndax fekkee na ko non non maanaam dama lay expliquer li nga xam ne nit soo ko seekul ak nit du ngeen ko dund léegi ma dellu si li ma mujjee wax ci interview bi ma njëkk a def bi ma bëree ba pare maanaam regret maanaam amul lu ma ciy regretté parce que man ragaluma Ama Baldé Ama Baldé du du du du du du doomu aadama en fait doomu aadama la du ma ko ragal man du ma ragal sax ku dul Ama Baldé Ama Baldé ñu ko sut si làmb ëpp ko coow làmb ëpp ko ay moyens si làmb sax ragaluma leen parce que man su ma noppee ragal góor ma dem wóor seur pour man mais dafay am diggante nit li ngeen di dund loo xam ne dafay jommale boppam yenn yi waaye wallaahi billaahi wallaahi taalaay amul lenn lu ma ko jàppal sama biir xol. parce que bu fekkee teraanga benn yoon defal na ma ko mooy que nekk naa prison muy ànd ak sam papa di dem si ay sëriñ di ñaan pour ñu bàyyi ma. kon làmb ji nii nii nii nii moom moo ciy def lu ñaaw mais man jomm naa ko ndax Ama dama doon xaar moom am personne làmb ji tolloon foofu mu ñëw yëkkati loxo Jacob Baldé yëkkati loxo Papa xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. benn beneen bi si toog ki dugg ci biir géew bi sama supporter la ñoo ànd ànd ñu am na leneen lu mu mënoon représenté en tant que Ama Baldé ci image am mooy calmer ñaari camp yëpp parce que ki doon bëri xaritam la doomam la ki ma doon bëreel doomam la waaye xelam fa la toll te comprendre nañ ko yàqul dara suñu diggante parce que ñun ay jaam lañ yoo xam ne ñun dañuy juum suñu borom duñu ñu loolu. déggante loolu leen ci si mais ba tey balaa meewu ma ko ci loolu. lu ko waroon la moom. moom lu waroon la. Ama Baldé ma bëre ak Jacob Baldé ba pare ñu continuer suñu xarit li ci xew lépp xew ci mu yëg na booy bi jàpp nañ ko donte li ci xew xew na mais man donte def naa loolu mais damay ñëwaat ci sama erreur sama diggante ak papa ndax lu war naa jomm di def li nga xam ne mooy ay ay ay ay dégâts ci camp papa. rawatina li ma sekk ak moom mu nekk suma rakk nekk suma xarit nekk suma doom nekk suma Ama Baldé ci làmb ji ba ni muy jeexee maa ngi moom dañuy communiquer ci ay bët. Ama Baldé bi may tuus moom mi ngi fecc parce que li ma doon def dafa neex da si doon yëg boppam moom. Zil Baldé bi ma dugg see si làmb ja ma ñëw ba si moom nuyu ko ñaari loxo parce que jomm naa di def lu ñaaw suma diggante ak ñoom mais li ñaaw lépp si ñoom seen camp la démarré bi ñu dugg see si stade bi ba ni làmb ci jeexee. mais loolu est-ce am ndam waaw non non ndam mënul am ñoom non ndam mënul woon am foofu parce que mooy li mu wax moom Zaka Baldé doon fay ay sëriñu ay un million huit cent loolu moyen moo koy def te waxoon naa ko ci làmb ji avant ne woon naa ko yaa ngi musoo bëreeg mbër mu am moyen comme man musoo bëreeg adversaire de taay bu toll ni comme man musoo bëreeg mbër mu la ñeme comme man musoo bëreeg mbër mu la xam comme ni ma la xame làmb nag li ci xew ci biir lépp yéen du ngeen ko xam mais li ma leen doon def ak li ñu ma doon def fi mu féete ñoom kenn ku si nekk ñun kenn ku si nekk xamante nañ suñu biir. non man avant bés bi dara maanaam ñun làmb ji dara umpuñu si ñun biñ doon dem stade ñun xam nañ lu leer luñ yóbbu stade muy làmb ji ñun xamoon nañ ne ndam ñun buñ ko amul ñoom ñun bu ñu amul woon ndam ci bés bi ñoom duñu am ndam ci bés bi. d'accord làmb leeroon na mu man papa. teguma ko ci ay gàllaaj de barki Seydina Mohamed man combat bi dama ci entraîné entraînement yoo xam ne man xamoon naa ne man tey su ma daanul Jacob Baldé Jacob du ma daan. loolu man yóbbu woon naa ko stade parce que combat bi ni ma ko préparé ci entraînement te yàlla xam na ne boo xoolee sax combat bi xeex bi li tax papa xeexul xeex bu jaar yoon sax làmb ji wër na Serigne Abdou Karim Mbacké préparé wu ma ci xeex. làmb ji bu mu desee trois jours man laa ci bi ñëwee di def répétition yi sin école sax laa doon takk ay gants di foontu foofu parce que man bëri laa indi si làmb ji combat bi presque ay un mois yoo xam ne dama ko contact. man bëre laa indi man bëre laa indi man suñ bëre woon làmb ju du yegg foofu maanaam làmb xeex bëre la ñu wax Père da koy wax su si xeex wut buntu la moom bu ñëwoon rek ñu ñu jël ñu jël xeex teg nële kon làmb ju du egg foofu te moom bi mu bi mu déclenché bëre xaw tuut ma daan ko Jules Balde bi boo xoolee vidéo yi da ko doon saagaay ndey parce que Jules Balde bëggul woon bëre bi bëggul Jacob Balde jàppante ak man ñu bëre bëggul loolu parce que ñoom ñoo ma yar xam nañ ma. yàlla yàllaa ma tiim damay wax dëgg ku dee ak sa bàmmeel kuy bëreeg Ama Balde ay contact ni font muy metti xam nañ ne boo bëreeg Jacob Balde day metti d'accord combat bi jàll na la ci xew lépp bu ñu ko toppee mm-hmm. euh, daanaka day lekk suñu te expliqué nga li nga ci waroon expliqué lépp euh, leer na mm-hmm. nga jóge ci bés dëgg malaat bés Papa Ndandi juumul euh, maa ngi ko doon wax Babacar maa ngi ko